People 221 TV ak euh, mbokk yi nga xam ni yéen a ngi delloo site bi di ko seetaan et moo xam ci wàllu actualité wàllu people ci li nga xam ne moom mooy wàllu tolluwaay réew mi surtout jamono yu politique la ñu nekk di même pas six mois wala sept mois ñu dëgmale élection euh, élection présidentielle donc ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall fas yéene ci organisé du ci bokk muy lu musul am euh, moom saltige Fatou ngoom dinañ ci ñëw ak moom maire bi ngeen janoon nag wax di yàlla nit la koo xam ni. Euh, saltige la di borom xam-xam ñu bari xam nañu ko ci lu yàggul dara defoon nga ay sorties Sen TV def ay sorties RTS am na benn film boo xam ni tourné nañ la ko RTS boo xam ni ci lu yàggul dara dina daw ci jigéen ñi nga xam ni dañuy faral di taxaw pour wàllu doom jigéen ñi nga xam ni dañoo am rab góor ñi nga xam ni dañuy bàyyi seen jabar yi dem ndox oyof ba nga xam ni duñ mën a am doom ñu yaakaar ni seen i jabar la jigéen ñi nga xam ni rab da leen jàpp mënuñoo sëy am na ñoo am jëkkër wala bu ñu amee jëkkër tas benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ëmb muy yàqu yooyu yëpp waxtaanee nga ko RTS ak fi nga xam ne moom mooy seen TV mbaboor mi tey di nga ko leeralaat fii ci People 221 TV yow mi nga xam ne yaa ngi doon ut kayit amuloo ko moom mère Fatou dana ci dimbale ñu bëri xam ngeen ko macha allah sorteem nag bëriwul euh, waaye lu ci ëpp ay liggéeyam ci yenn télévision yi la waaye tey dafa wax ni dina génn par rapport ak actualité bi ci njëkk moom mooy diggante Ablaye fay mooy Paulis Ablaye fay dina ko tooñ ci Fayeen bi ndax kalam la diggante Ablaye fay ak papaam bi nga xam ni defoon na sorti erreur bi nga xam ni amoon na ci mooy journaliste yi nga xam ni demoon nañu seeti ko duñ sax ay journaliste ay présentateurs yoroon seeni i def nañu erreur wala defuñu erreur seeti papaay Pawlish te alors que xale bi takk na jabar dans deux jours ci côté ñoo xam ne ay nawleem lañ mu am fa jabar ci ñaari fan ñetti fan am benn site bu seeti papaam wax loo ko def erreur bi erreur la wala du erreur danañ ci ñëw donte malgré que lépp ça va ndax gis nañ ay image démb kapaw li seeti na papaam mais àndul ak benn média beneen bi mooy diggante président Ousmane euh, président Macky Sall génn na bokkatul ci élection yi. te élection yi dina ko organiser te macha allah du ci bokk euh, ban saluer ngay wax ci président rafetlu ko ndax àddina bi ñëpp rafetlu nañ ko saltige faatu Ngom waaye dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu soog a ñëw ci temps fort yi nga xam ni surtout ci actualité mais ci wàllu xam-xam d'abord parce que xam-xam bi dinañ ko ñëw ci digg bi ñu waxtaane ko ndax kenn du la seet si sañu ñu ñaar tàllal micro te duñ waxtaan yow ci wàllu rap sañuñu laa tàllal micro te duñ waxtaanee ci wàllu seytaane ak jinne ak ngelaw waaye loola bala ñu ci ñëw mooy dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu soog a ñëw ci actualité people. waaw asalaamaaleykum. aleykum salaam. waa people. Mhm. maa ngi egg people 221 people 221. <laughs> Fatou Ngom saltige leen di nuyu. Mhm. di leen balu àq di leen dalal di leen tatagal. Mhm. nag sama sëriñ. muy sëñ Mbaye Sy Mansour. di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér. amiin yaa ko yàlla yokk. amiin yaa di dem nag Touba. Mhm. ci sunu sëriñ su baax soosu di sëñ Abdou. sëñ Muntaxa Mbàkke Muntaxa Mbàkke mu baax ju neex ci borom mhm. mhm. di ko ñaanal jàmm ko ñaanal gudd fan di njabootam. noonu laa duggee Kaolack di ko ñaanal Baye Niass ak waa këram. dellu siwaat nag ci sama kër ndey muy sëñ Ablaye Thiaw waa laa yéen maa ngi leen di siyaar di leen nuyu di leen baloo ak di leen ñaanal gudd fan ànd ak wér yal na yàlla def ci jàmm ci réew mi. amin yaa rabbal aalamiin yal na yàlla wis ndoxum jàmm ci réew mi yal na ci jàmm nekk. amin barke yonent bi. jërëjëf barke yonent Yàlla Muhammad bari ñu ñëw ci acteur ñu njëkk ñëw ci njiitum réew mi. def na déclaration ni bokkatul. jamono yee passé waxoon nga ko ci télévision bi rafetlu ko macha allah bi réew mi tàkkee taxaw nga seen TV nii su jaree ma sukk samay tànk dinaa ko def ñaan xale yi ñu bàyyi. malgré que même bu fekkee ni bàyyi na nit bu dul it am nga ci part de responsabilité na xale yi bàyyi nañu loola weesu na président waxaat ni bokkul ay nit doon xeex tey toogaat mun a bokkul alors lan nga ban gis-gis nga am ak ban rafet lu yan kàddu nga ci tudd ndax ñëpp a ko rafetlu. di ñaanal Macky rek nag. la ko waxoon ne ko yaay bàyyi ñëpp def na ko nag. Mhm. ndax nii mu waxee rek def na ko. Mhm. moom xam na ne mooy bàyyi ñëpp. Mhm. njaaxaan naay la tëddee. kenn ñëpp nag kontaan ci li mu def te di ko mm-hmm. ñaanal jàmm ak fu mu jublu nag mm-hmm. moo ko njabootam yal na ko yàlla yokk jàmm ci ndog mm-hmm. ndax ku am kàddu la ku am positif ku am ak muñ dégg na lu ne gis na lu ne waaye lépp da ko muñ maasale lépp bal ak ñëpp nag noo ngi koy baalu ak te di ko ñaanal jàmm ak fu mu tolloo fu mu nekk mu njabootam yëpp di ñaanal soxnaam su baax soosu ajaratu Mariam Faye Sall. ndeysaan eh, ñëw ci njariñu sarax parce que ñu ngi jëm actualité people waaye ci kaw ba tey ci wàllu politique. et eh, ci wàllu sarax yi da nga ci ñëw parce que des fois ci nawet bi da ngeen faral di génn ay sarax ci wàllu géej gi. Mhm. xale yaa ngi jëmaat foofu am na loo waxoon ci ndaw ñi. dinañ ñëw ci fin bi parce que am na ay sarax yooyu tegtal te xale yi mënuñoo bàyyi géej gi donc bi ci topp moom mooy ki nga xam ni mooy président Macky Sall nee na organiser élection d'accord du ci bokk ñëpp rafetlu nañ ko. Ousmane Sonko bokkul du bokk ci élection yi gis-gisu Ajaratu Fatou Ngom lan la ci. parce que dañ nar a organiser élection moom président nee du bokk wala état sax justice laay wax bokk pas président dama yàlla jéggal ci kàddu yi waate nañ ko ci wàllub yoon nee nañ bokkul deux ans de prison lañ ko tëj alors lan ngay wax ci wàllu politique bi. ah man de dama noonu duma ci wax ci politique ndax sama yoon nekku ci waaye nag réew boo fa nekkee. barab boo fa nekkee sax mhm. lu ñu yëngu nga yëngu ci mhm. man daal li ma ciy ñaan mooy wax jàmm rek def jàmm xale yi ba nga xamante ne coow li am na ak loolu yëpp mhm. damaa dem télé ba micro bi <laughs> raam tuub di leen jéggalu ne bu taajee ma raam ma raam ngeen seral yëpp wallaay ko waxal naa leen ko wax dëgg yàlla it gis naa ci ñoom waaye loo ngi leen ñaanal nag ñoom ñooñu foo ñu bëgg a yegg yal na leen fa yàggale yeggale yàlla sàmm leen may leen gudd fan go ànd ak wér tey xam ne nag ndaw yi ñooy moom lépp ëllëg nun suñu wàll wey ne mag lan ban waaye nag ndaw yi nag ñoo war a defarwaat seen toogaay ñoo war a muñaat ñoo war a warati ñaan jàmm tey def jàmm te bañ a tombé ci benn piège benn piège bu ñuy def maa lu ñuy wax d'accord leen ñaanal jàmm ak gudd fan. ok lan mooy ëllëgu usman Sonko ndax tey euh, xëy na jàpp nañ ni doon nañ ko àtte ci ay erreur yoo xam ne jàpp nañ ni defoon nañ ko wala defu ko tey ñu àtte ko e tëj ko ba narta bokk ci élection yi musiba nar a am te élection bi fi amaatee à part 2024 2035 la musiba naaru laay loolu euh, mu ñu nar ko sacrifier par erreur nii narta bokkoon kooku kañ lay jiitee ci réew mi euh, lan mooy ëllëgam ëllëg soit dafa manqué ay ñaan. wala sarax wala dafa am lu lënkuwoon ci moom loo xam ne jàpp ni naam wax nga ne amoon na ay ñaan mais ay erreur de parole la lan mooy ëllëgam moom bu Ousmane Sonko. lii ëllëgam rek muñ asgor day muñ muy neex ngay muñ muy métti ngay muñ. Mm-hmm. te lu métti du dal ci kenn lu ci nit. wallaay. yàq bu jëy la juddoo ci yàq bu rëy la juddoo. Mm-hmm. na xam boppam xool boppam natt boppam te xam ne lu dul tey di ëllëg. dëgg la te li muy yootu yomb te li muy yootu. Ah, ñëpp ko bëgg di ko xëccoo. képp koo xam ne yàlla sunu borom teg na la fi yaa fay toog. Mm-hmm. di ko ñaanal nag jàmm mm-hmm. ak muñ ak gal mm-hmm. te xam ne léppay baax. am na léppay baax. wallaay léppay baax. na muñ te xam ne rek ah lu jot yaa lu jot rek yomb te nga xam ne yàlla teg na ko fi teg na ko fi ban kenn mënu ci dara. d'accord et nguur yàlla moo koy joxe. waaw waaye nee nga na muñ mais ci kaw muñ boobu dafa am lu ci lalu. mooy déggoon nañ ci ay wax sax nga defoon ay révélation nii naam am na ay ñaan waaye am na ci loo xam ne bu dalee asu ndaw rek nañ gën a defaraat yaramam. waaw waaw dafa war a defarwaat bu baax. Mhm. ndax itam. Mhm. yàlla sunu borom mii. Mhm. ba mu sàkkee métit la sàkk seral. métti na naqari na sonn na. waaye na gën a defarwaat te dellu ñaanaat ci waajuram. xam naa ne waajuram merewu ko mhm. wax dëgg yàlla mhm. waaye nag dolli ay ñaan dolli ay sarax te muñ ta xam ne am na lu tey tey ëllëg d'accord mais jàpp nga ni élection yi euh, présidentielles yi su jàllee ci jàmm ak salaam tet yoo xam ni kenn xalaatu ko woon dina am ndax am na ay loo waxoon ci mbugaan ni dina son mais dina dooni dara ëllëg malgré que ñu ngi xalaat ci moom parrainage ndax dina jàll wala du jàll mais keneen ku dul mbugaan euh, it jàpp nga ni dina xel yuuxu dina jug fuñ ko foogeewul wala wallaahi parce que des fois yéen bu nawet bi jugee wala élection yi da ngeen ñi gis ay mbir waaw léegi hmm. la ma waxoon bugaan naa ko sonnal boo sonnee dina neexi waaw moom it nag li ma koy ñaanal rek wér ak gudd fan ak ku muñ ak dal hmm. te xam ne rek lépp fa mu war a toog rek yàlla sunu borom teg na ko fa dina fa mas toog kenn ku nekk la ngay ñaante di ko mébét te muy lu baax yal na ko yàlla def te lu waaye di ñaan lu ne yal na gën ci moom ak njaboot. amiin donc ñu génn diwaanu politique te xam ni. Mhm. Euh, élection yi mi ngi ñëw. Mhm. ñu wax ak ndaw ñi. nañu ànd ak dal te tey te xam ni réew mi si seen kaw la jëm. ci lay mujj ci yéen lay mujj wax nañ fi léegi souligné nañ ko ne pétrole be gaz bi mi ngi ñëw. te ci ñi ngi war a jàngi pour war naka la ñuy gérer pétrole bi bu leen kenn tàllooti bu leen kenn yàqaloo ak ku mën a doon ah, ak fu waay mën a far ak ku mën a doon politicien bu mën a doon donc mu am beneen mbir moo xam ni bëgg naa ñu waxtaanee ko muy entre Pawlish Mbaye ak papaam wala Ablaye fay ak papaam xëy na ñu digg ci réseaux sociaux yi ndax bi muy tàgg tàgguwul kenn intéressé wul ñeneen ñi mais gis nañ ni xale bi mu ngi doon dem di takki soxna. mu neex lool macha allah ñu may ko ci famille bu baax am ñoo xam ni presque la ñu yor xëy dem seeti papaam rek defloo ko penalty bi donc bala ngay lancer message ci papaam ak yaayam ak ba ci Ablaye moom Pawlish lan nga njëkk a gisee xale bi takk na soxna malgré que ñu ngi ci jàmm ñu xëy dem seeti papaam bali li xew ci. xam nga li ma wax rek ndax diggante ndey ak doom. Mhm. diggante baay ak doom. xeer la ak nen mm-hmm. bu doom dalee ci xeer ba bu nen dalee ci xeer ba mm-hmm. day toj bu xeer ba dalee ci kaw mi day toj mm-hmm. te ñaanu waajur lu jaadu la ndax it nag waajur dafa sonn ci doom muy baay muy ndey moo tax ba li ma koy ñaax li tax. Mhm. lii nga xam ne moom la papaam def. Mhm. ak ña fa demoon di wax ak moom. ña fa njëkkoon dem. maanaam takk gi am. ñu dem fa wax loo bi ko wax looloo xam ne jaaduwut man de li ma koy ñaan. mënoon naa bañ a am. naa bañ ndax ba takk amee ba ci ëllëg sa. Mm. na dowal otoom. Mhm. mbaa ca guddi ga rek mu dowal otoom dem ba ca papaam mbaa mu woolu ko ndaw ne ko li nga def moo ko attane lu tax mm. waxoo ma ko. Mm-hmm. lan moo tax nga def lii. lu ci génne mu daal di jeex ci moom jëm ci doomam. Mhm. dégg nga waaye génn di ko wax. Mhm. yàq deru doomam loolu ñaaw na. maanaam bi am mooy média bi ko seeti non seulement wax loo ko. ba pare moom it wax bi mënoon naa ñàkk mënoon naa seeti doomam ci pet. waxtaan ak moom moo gën parce que nee nga à chaque fois ñuy wax ci média na ñu def très attention ndax wax bu demee rek dem na. bu dee waaw kàddu bu xasee génn rek bal la dootu dellu ginnaaw day dal rek kon nag lu waay di wax na ko xam lu waay def na ko xam. Mhm. léegi man ci moom di waxtaan ak baayam ba tax mu génn lii. Mm-hmm. man de ñaawlu naa ko rafetlu ma mm-hmm. waaye nag may dal ci sama sot mm-hmm. di sama doom mu muy Ablaye Faye. xam naa ni nga sant Faye rek. waaw parce que nga di ko si ceeb baag mburu ma. waaw ak ak ci ak ak yàpp. waaw moo tax xëy na mënoo koo woo. waaye man de xam naa ne ngomeen bii de moom. dina jël si wàllam. léegi. yow ni nga def. bàyyi la. ak nu mu manti doon ak nu mu manti demee. waxtaan ak sa baay dëgg la nee nga takku jàkk nga ko doon def. Hmm. waaye lu mu doon doon sekk dàkk nga waxtaan ak sa baay. yëgal na ko nee na woo yëgal na ko takk gi. Ah. waaye comme li ngay wax maanaam ci wàllu famille fi ngay waxee ci doomam mooy entre baay ak doom. ak doom lépp mënoon na nekk ci sutura parce que am na loo xam ni xamee ko woon Pawlish te ñu bëri xamuñ woon ni am na problème ak papaam mais sortie bi am moo waral ñu bëri xam ni. ki li am digganteem ak papaam dëgg la rafet nañu ko waxtaan nañ ci biir waaye nag wax dafay dem te kenn mënatu koo dabu. Hmm. boo xasee baax kenn mënatu laa dabu. te wax bi. Hmm. metti na de. Hmm. ndax li tax mu metti mooy kenn xamalul woon papis dara. kenn xamuloon woon digganteem ak papaam kenn xamul woon digganteem ak yaayam waaye nag ah loo xam ne lu mu manti doon mënut mën a ñàkk xëy na looloo am. kon daal erreur bi mooy fi nga ko tënk mooy ñi demoon seeti papaam waxloo ko. ñooñu dong laa mere. mais li nga wax waaw parce que li nga wax ni ñu bari seetlu bàyyi wuñ xel loolu maanaam takk gi am na ñëpp a ngi célébré ñu bëggee xew bi waaw ñii dem seeti papaam wax loo ko lii di ko wax loolu lii ba papaam génn wax li mu wax ñàq nderu doom lu ñaaw la ma di ko ñaax kër ëllëg doom doom la nawle la doomit it na xam waajuram te xam ne lu mu métti métti waajuray bàyyi lu muy mujj te ñaanu waajur lu jara sàkku la ñaanu waajur lu jar a sàkk la waaye doom it daa war a tëddee njaaxaan ah, ndey baay dafa war a baay moom baayam ñëpp la. mais papaam parce que moom it bi mu génnee wax ak ko waxee comme ni nga ko waxee munoon na taal otoom. dem seeti seeti xale bi ma tax moo ko jur ci ci ci ci sutura. ci tàng na ko li nga def foo ko teg. waaw lu tax nga def lii nga def foofa réeroo la waaye nag loolu yëpp comme yàlla sunu borom def na ba lépp sedd na ba ngeen ànd ci jàmm ëllëg laa ne bu mu amaat yedduma la nag. dama lay wax rek li nga xam ne mooy waajur diggante waajur baay ak doom ndey ak baay. d'accord léegi ndey ak baay boobu ci la ñëw ci yaayam yaayam def na ay sorties 2STV bi fa affaire bi amee mu woote malgré que ni Pawlish bi mu juddoo ak lu mën a xew bi ñu la laajee yow da nga ne ñu sama vie privée jaambur bu leen ci wax. tey it nag lu ci waay di wax na ko xam ndax ñoomi neen la même bu ñu yóbbee seen bopp ci média bi lu ci waay di wax na nga ko xam. te bi nga te bi ñu la seetsee laaj da nga ne du ci wax. mais bi juboo amee da ne dinaa ci wax parce que lii laa ci doon sóor danaa ci joxe suma xalaat mais yaayam dëgg la malgré que xëy na jamono nit ku ne da ngay mer mais bu muy génnee envoyé message wax 2STV yaayam kàddu ya muy yëkk dafa mel ni xëy na jàppoon nañ ne papaay Pawlish ci ay jamono xëy na joxuloon bopp doom ji waaye ki nga xam ni mooy Ablaye mbay ki ko tuddee mbay ki sant mbay moom la Cheikh mbay xëy na moom lañ jàpp ni moom mooy yoroon Pawlish mais yaayam est-ce que kàddu yu mu yëkkati malgré dëgg la am na fu mu jaar ak papa Pawlish est waroon na ko en tant que yaay. waru ko de ko moom itam dal naa ci ko mhm. ndax li tax waru ko. doom nu mu manti mel rek te it nag. Mhm. saabu ba nga xam ne moom la ndey di fóote doom. Mhm. du jeex du xaaj. saabu ba bàyyi di fóote doom du jeex du xaaj ndax xol la. doom ci xol la sax. lépp lu mu manti doon ak lu mu manti doon mu am démb waroo ko man duma dugg ci vie privée jàmbur uh-huh. du ma ci dugg de uh-huh. ndey doom la ak baay uh-huh. loolu man duma ci dugg waaye li mën na ñàkk daal mooy génn nga di wax ñu di la xamal te yow ñi ngay xamal ñooñu xamaloo leen lépp daal da nga ko woon ko yow ci sutura képp ak i teggin sutura ak teggin lu mu manti doon moo am ndax yàlla sunu borom sax dafa bëgg sutura moo tax mu sàkk guddi sàkk ba bëccëg sàkk jëkkër ak jabar ngir sutura. d' accord mais yan conseil ngay jox tamit ñi nga xam ni dañ ci doon wax bi coow na ne kuur ci bàyyi jàmbur wala doomi jàmbur. Mhm. te Pawlish bi ñu ko laajee gis nga ko démb wax ITV nee ku ma bàyyiloo sama baay yaa ngi sa baay. mu ngoog ku ma bàyyiloo sama yaay yaa ngi téye sa yaay kon ñooñu war nañ envoyé nañ boo xam ne maanaam est ce que wu laajul loolu ñu neutre ci ci bàyyi jàmbur rek nga bëgg a xam pour xaawi sutura taaru ko yow yaa ngi téye sa baay. du yoon xaawi sutura sa doom. Hmm. nga dem yow téye sa baay ba noppi bëgg a yàq baay doom baay ak doom. Hmm. loolu araam na sax par li gën a araam ci àddina mooy tas ak bokk tas ak bokk fi ci kóllëre tas yaakaar ku koy def yàlla sunu borom dalay xaar kenn bëgg ko. su problème mu jàmm daan amee. problème mu jàmm ko amee. Hmm. nëtëral te di ca wax lu rafet soo ko mënee. Hmm. mbëppiis maa ngi lay ñaanaat. lu la waay waxati. muy ku mu manti doon. toppal sa baay daal. toppal sa baay ak sa yaay. ñaareel ba boo wéetee sa nga xam ki lay wax lu baax ak ki lay wax lu bon. kenn ku nekk war ngaa am ruqub man kan. message bu am solo boo wéetee sa njëgënaay. para war euh, xoolal ki lay wax lu baax xoolal lay wax ak lu bon. nga seet segg seet fa fa war a jaar ndax yàqkat yi dafa bari defarkat yi bari waaye buñ la waxee wéetal ak sa njëgënaay rek nga xool ah man de di wax na ma nangam ak nangam waaw lu ci pexe kenn ku ne war naa am ruqub man a kan rek. mais papaam tamit lan nga koy envoyé message parce que moom it génn na wax d'accord am na ñu ko seeti mu wax waaye moom it def na ay erreur papaam ndax sa doom la lan nga ko mën a moom it conseillé ci en tant que waajur ak doom. waaw ah, en tant que waajur ak doom li ma lay wax moom sëñ bi hmm. mooy doom doom la. Hmm. te it boo defaree. Hmm. soo defaree sa doom. yaa ko jur. soo ko yàqee yaa ko jur. ma di la conseil lenn doom doom yi ñëpp dëgg la baay baay ñëpp la. waaye doom ju nekk ci giño la jóge mm. te di la ñaana nag nga defaraat mm-hmm. juboo ngeen yéen a ngi ci jàmm mm. waaye bu la kenn mën a booleeg sa doom bu la kenn mën a jaxaseeg sa doom mm. nun jigéen sax ñoo raw ci ñiy jaxase mm-hmm. nun mm-hmm. jigéen ñii di sëy message bu am noo mën a yàq noo mën a defar ndax kër boobu dafay bu baaxee jabar la su bonee jabar ndax baay mënul lut duggi ñëw jox la takk jabar indi ci kër gi yëkkati lépp teg ci jigéen ñi ak lu mën a xew te ñu moytu euh, di génne suñu vie privée ci internet yi ko wax nit ñi di ko dégg mm-hmm. ñaaw na mm-hmm. ndax ñi ngay wax ñu di ko dégg ñëpp amul ci kenn koo ci xamal dara ba mu man laa wax dara te mu nga loo xam ne kenn xamu mu nga loo xam ne ne muut tag moom mm-hmm. te bëggul ko xam kon nag na nanu seetaat suñu xel yeddaat suñu xel yeddaat suñu bopp tam téye jabaram ñu sëy sëy bu ànd ak barkeel yàlla may na ci njaboot bi barkeel xale la macha léegi kenn du waxtaan ak yow duñ la seet si te duñ ñëw ci wàllu rab ak wàllu seytaane ak wàllu jinne ginnaawu actualité parce que loolu mooy sa domaine ñun loolu lañ la xamee loolu bokk na ci li tax ñu seet si la ndax yaa ngi doon def ay sorties comme ci télévision yi que da nga koy faj mais ndono gi bëgg nañ nga laal ñu ci tuuti fu mu gën a jugee ci yow parce que li nga am ci ay turandoo dafa bari wàllum fajum doom da nga ci dem ba am ci raaya ñu jox la ko ca gondol almadi benn événement bu fa amoon ñu doon sargal jigéen ñi jox la fa raaye raaye gi nag liñ la ko joxe mooy li nga am ci ay turandoo kenn xamul nu mu toll. ay tubaab sax li nga am ci ay turandoo tubaab kenn xamul nu mu parce que da faj ay jigéen ñu bëri ñu am doom ñu tële wax ak jigóor ñi nga xam ni seen ndox dafa oyof ak ñi nga xam ni seen awra dafay dellu mais balaa loolu lan moo tax lu ñu la laaj rek nga ni rab. ah yàlla sunu borom de ba muy sàkk bi de ku ne la sax booy juddu da ngay judduwaale rab. Mm-hmm. nit ku nekk am na nit ku ne ba nga juddu judduwaale nga rab. Mhm. day rab bu baax ak rab bu sàggan. Mhm. léegi. Mhm. li nga xam ne moom sunu borom moom na ko def. ndax la ma la waxoon rek bokk bu ne. yàlla sunu borom xam na la mun te def. man nag xamuma dara mënuma dara yàlla rek laa xam ak yonent bi. Mhm. ci barke Serigne Babacar Sy. Mhm. yaakaaruma kenn ginnaaw yàlla ak yonent bi bu tudd moom. d' accord léegi avant ñuy tudd rab bi. Mhm. nee nga ku judd ku na ànd naag rab yow mii da nga ànd ak rab. te ñu wax wàllu ñaan wala wàllu seet wala wàllu sarax ay bagage u raba. mbiru raba moo tax su ngeen gisee xale yi di ko foowee bëri ci télévision yi wala ci internet da leen jaaxal parce que nga rab jàpp na say tànk ay at feebar la. moo ma dof juróomi di la yëf di dugg si façon bu ne ñëwee na sa kaw kon ki koy foowee est ce que xam na conséquence bi ko mën a jural donc ndono gi ñu ñëw ci. ndono gi. Hmm. sama maam ko daan def. Hmm. ba ko sama maam bàyyee sama maam mu góor. Hmm. mu jigéen. ci sama kër baay. ak sama maam ci sama kër ndey. kenn ku ci nekk dañ leen daan fekk si ci lu mel noonu mosuma ne nit mukk nag fay ma waaw su ma la seetee ba xam ne yow mii kat nanga rabal a jàpp mbaalu mu manti doon dama na laa ah, bu fekkee seetal naa la ba nga gis sa tarax soo génnee sa sarax bala nga maa fay dangaa gis li nga bëgg loola ma daan def démb ak bërki démb sama maam loola daan def mayit loolu laay def mënuma ko weesu te duma ko weesu mu duma fayu kenn ne ko fay ma te defaluma la ba nga gis waaye nag su ma la seetalee ba wax la sa sarax soo génnee sarax ba incha allah bu ci yàlla àndee li nga bëgg di ko d'accord mais ci ma la seetalee su ma la seetalee ba wax la sa sarax wala su la su ma la fajee wala nangam mais loolu am lu ko wundu. parce que nee nga sa maam moo daan faj sa maam lan la daan faj. parce que sa maam euh, ndono gi yàgg na ndax ku xool at yi nga am macha allah booy tudd sa maam kon jamonoy faj yàggoon na sa maam lan la daan faj et puis euh, nan la doon fajee ci côté taxawaayu rab parce que rab ñu bari ñu ngi ci dugg mais pour ñu faj ko problème la parce que rab soit da koy dàq mu dem wala da koy neexal wala da koy génn ci nit ki te loolu sa maam yëpp da ko daan def ba yàlla dimbali nga doon ci moom ci wàllu fajum doom. sa maam li mu ko daan defee man. Mhm. sa maam nee na rab doo ko génn ci borom. waaye nag boo la xamante ne mere na la ba def la li mu la def sarax ba mu la laaj boo ko génnee li nga bëgg rab dina ko defal te rab nag day aar rab dëgg-dëgg borom rab dëgg-dëgg kenn mënu ko liggéey ba jàpp. su fekkente ne neexal nga ko ba xoolam sedd lu la waaye liggéey day dellu ci koom lu la waaye def ci lu bon day dellu ci koom waaye soo ko jéemee génne da nga ci sonn terab du génn de ci nit définitivement déedéet day toog kay di la xool lu ñu lay def ma toog di la xool d'accord léegi ci côté rab bi ah. ki muy jàpp ba mu të am doom nan la koy téye nan la koy def soit ah. gént lay doon waaw da ngay gént <laughs> da ngay tëdd ba guddi bu dee jigéen la tëdd ba guddi di sëy Mm-hmm. boo ko defee sëy boo xëyee sa xol bi day tàng même sa jëkkër bu la tegee loxo keroog doo bëgg parce que buy ànd ak yow day metti day mel ni da koo saañ wex xat mm-hmm. waaw mbaa mu bañ xol bi tàng bu yewoo xol bi tàng muy mer ni muy def jigéen nag lay def góor parce que bu la dikkalee sax doo man sa jabar dara mbaa doo ci bëgg léeg-léeg mu nangoo awra góor ba mu gàtt mm-hmm. léeg-léeg mu def ko loo xam ne day nekk ba nekk ci état ba tiim jabaram mm. mu ne ko doo ko fi amee ne ko soo mu mel ni Mm-hmm. loolu day am. Mm-hmm. te nag lépp mbirum rab la. rab rab yi dafay indi retardul rek bu dee jëkkër. Mm-hmm. bu dee jóor. jabar la koy def mu toll mu nga ànd ak moom bu dee jigéen jëkkër la koy def fu mu toll noonu la te bala lay dikkal kat da lay dikkal pare ay weer par ay fan saa yoo tolloo ci weer rek rab ba daal dina dikk seet si la. bu la seet seen mu la fekkee noonu la lay di par la force di nga ànd ak moom boo àndee moom dootoo mën ci sa jabar dara mbaa ñaari couple ah, dañuy dafa am moment yi muy ñëw ci yow waaw daa am yi muy ñëw ci yow du bët bu set ram ñëw de du bët bu set mu ñëw mm-hmm. dafa am toll temps yoo xam ne jigéen bu tolloo ci parwetu bëgg a gis fóot muy dugg weer wa ba balaa fan yee ñëw ci la koy dugg da ngay gis muy mer di naqari deret loo ko wax mu mer Hmm. xol bi tàng. loo wax mu mer. du am jàmm. ok noonu lañ koy. et puis di changer ay couleuru réglam. waaw maanaam di changer tamit ay datu. Uh-huh. nga war a gis. nga war a foot mu ne ko war wi nga ko war a gisee doo ko gis. mu war la ne nen bii kat dafa war a juddu waxtu sàngam la war a juddu waaye man rab bi maa ngi koy dagaase làq ko xaw xam ne doom du ñëw taxaw boo àndee sa bërëm kër mu ne ko këpp ci say pooj ne ndox mi du dugg ba doom war a taxaw nen bi door a delluwaat palaasam toog loolu lépp mbirum rab la. taxawaay rab mooy def loolu di gàllankoor nit ki mu bañ a am doom. ngay wut sax alal loo wut ngay wut mbaa ngay liggéey bu dee góor danga naa dangay dem di wuti ba saa yoo ko xamante ne gént nga def loolu bu bët sete doo am dara foo dugg doo am dara doo bari ay xarit day dëgër kët. foo liggéey ñu dàq la. lool foo liggéey mu dàqale doo safoo bu dee góor yi dañuy la da lay dëppaleeg ñoom du ngeen jubóo mu. d' léegi ci tënk ba ndax li duuf ci nag bi xaju ci cin ni mhm. ginnaaw wàllu doom yi. Mhm. parce que nag macha allah sa spécial la jigéen ñu bari mënuñoo am doom faj nga leen bañ jël ëmb. Mhm. Euh, toj nga parcelle toj nga Afrique toj mais dama ni. maanaam tey euh, yàlla mooy faj macha allah yàllaa ko def ci yow et. ak doom ki nga xam ni rab jàpp na ko ba nga faj ko. et puis mi naka lay demee parce que nag soit da ngay faj moom ak jëkkëram wala moom ngay faj wala traitement bi nan lay demee et puis ban moment lay fay. ah xam nga nag place yàlla mënuma ma caa dugg. Uh-huh. waaye li sama daan def nga xam ne bu la fajee li tax bu nu bu ma lay faj du ma la ne fay ma nangam. Hmm. di nga ma fay de waaye bala nga maa fay da teg li nga bëgg danga koo gis liggéey bu wut ci man li ko sama daan defee. Hmm. bu lay faj boo xamante ne seet na la ba seet na te mënu faj. Hmm. du la laal. du ci man dara. bu dee keneen lay faj dala naa demee cib diw. moo lay faj pën mënu ma laa faj noonu la ko sama daan defee. ki nga xam ne dafay def traitement wu doom. waaw da nga koy defal traitement bi ba mu am doom ci lay soo ko fay. waaw mais avant muy fay dafa am ay sarax parce que bu. fekkee ma la seetalee ba nga laaj sarax. ngay génne sarax yooyu bu sarax yi génnee ñuul ma di la faj du ma la antulit ne na tey ngay am du ma ne lay tey ngay ñàkk su ma la dee faj du ma la faj benn yoon. mooy li nga wax ñëpp. loolu laa du ma la faj benn yoon deel ñëw ma di la faj ba nga gis li nga bëgg fay ma. ginnaaw laaj naa sa sarax ba jël ko ndax nag lu mu mënti doon rek nu ko waxaat ci bàmmeel te dinañu dem ci bàmmeel te lu mu gàtt gàtt juróom-ñaari jéego ya ñuy dox denc la yàlla ba noppi dox juróom-ñaari jéego ca la la malaaka yi ñëw di yëkkatiwaat ne la bëcc sab karne ne yaa defoon lii yaa waxoon lii kon nag loolu lu jar a seet lu jar a seet la ci xale yi nga xam ni tey dugg nañ ci waaw vraiment vraiment c'est trop. vraiment tey nag ni ku xool ni la yëf yi duggee nii teewoon say tànk ak rab nu mu mel. Eh. ah di nga bàyyi li ngay caaxaane de. ngoogu de ah. ah rab day ma ngoog. rab dafa mën a dund de. billaahi rab nañ def présentation de ay lay dund. jinne ñi koy fowee. te amuñu xam-xam. dañoo xamul waaye rab dëgg ku mu jàpp li nga xam rab. kon daal yow gëmoo koo xam ni xamul conséquence su ci nekk mu xëy na day teg la yu naan day ñaan. Ah, moo xam ak yàlla waaye nag bu rab ba meree mu xam damay faj dem damay faj rab te mënoo ko dara bés bu la jàppee nga xam. d'accord léegi euh, bala ñuy tàggoo nee nga bu euh, nit bu la nit euh, seet see bari nga ci ay turandoo da nga koy faj ba pare bu amee doom soo ko fay. d' accord léegi lan mooy njariñu saraxam njariñu sarax secret yi parce que am na sarax yu bëri da nga koy xool ci nit ki génnaloo ko ko mu génn ko yàlla may ko doom. koo jàkkaarloog moom gàtt nagu bët maaru gi xam ne ci moom. laa ilaha illallah. xool nit mu xool la rek nga xool maaru gi ah fii boo ci xoolee di nga xam nit kii mooy kan warkat it noonu la mel boo gisee da ngay gis nit ñëw toog wax. nga daal ne teq rek xam nga la nga xam ba pare. la ilaha illallah. waaw bu dee war xam nga bu dee nitu dëgg xam nga man dey maa ngi ñaan yàlla sunu borom lépp lu ma defal nit yal na ko yàlla nangu lépp loo xam ne nar naa ko defal nit te nar cee fen ma nar cee war yàlla bu ko am te it nag maa ngi ñaan sunu borom yàlla na ñu yóbbu sama àq te ma bañ yóbbu àq kenn. loolu laay ñaan sunu borom yàlla ndax lu mu yàgg yàgg dinaa dem ci bàmmeel oh mënuñu dara xamuñu dara yàlla rek euh, ñi am problème mu këyit ñu am problème mu soxla problème mu ngóore yi am na pomade yoo xam ne day yokk awra comme ni mu ko waxee rab da koy delloo pomade bi soo ko ci diwee da koy yokk ba pare autour bi nga bëgg mu ne sa ndox dafa oyof am na ñoo xam ne dañuy sëy seen jabar yi ñuy ñëw di faju alors que ñoom la seen ndox na poudre boo xam ne meew nga koy booleel soo ko naanee incha allahu taala day yokk sa maniw ba pare day dindi infection ñaar fukki plante ak ñaar la ko liggéeye ba pare day yokk ferñente yi day raxas sa deret ba pare day dindi infection kenn du la wàll feebar. beneen bi ci topp mooy balaa ngay tàggoo njariñu sarax ak sarax yi lan lay def parce que am na ñu bëri ñoo xam ni ñi ngi lijjanti ay kayit ñi ngi sangu ñi ngi def nangam malgré que am nga fi ay cat pour wàllu ngelaw am nga fi ay cuuraay yoo xam ne ñun ñu la xam xam nañ ne daan nga ci dimbale ay doomi aadama ci wàllu cuuraay pour wàllu seytaane ak wàllu cat yooyu yëpp mi ngi fi xajul ci émission bi soxla bu waaye am numéro yi mooy affiché bi mooy 77 da ngay def 5 beneen bi nga def 77 204 41 37 pour ki nga xam ni bëgg na faju pour wàllu doom wala bëgg na yokk man niwam wala am na problème mu këyit wala tànk yu métti ndigg liy métti raay mu sedd mais balaa ñuy ñëw ci loolu nga tàggoo njariñu sarax ak secret bi ak li muy dëgg dëgg dëgg fekk nit ci xat-xat mu dimbali situation parce que sarax mooy lépp. gis nga sarax. Hmm. wallaahi billaahi damaa waat ne billaahi moo ngi ñel julli. Hmm, hmm. sarax ci dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla sunu borom moom la jëkk santaane sarax sàkk asaka ci soo ko mënee topp sa juróomi waxtu mhm. aj màkka mhm. loolu la yàlla sunu boroom jëkk santaane sarax bi mhm. boo xamante ne yow xool nañu la laaj sa sarax danga ko war a génne sarax dafay faj lu ne parce que farax ah, mas naa fee nett li benn misaal boo xam ne sarax ko def moo tax ba sarax dañu ko war di sàkk sarax dina fanga lu ne nag lu bon lu nar a ñëw ci man nga yëkkati sarax booba génne ko ñaan yàlla mm. lu nar a jëm ci man lu mu manti doon rek yàlla na ko sarax bi fang sànni ko ci àll ba mm. te bañ a dal kenn mm. lépp loo xam ne yaa ngi ko yëkkati waaye di jël sarax di ko wëndeel sa bopp loolu yàlla sib na ko ko sarax nee nga sax ñu bëri ñu ngi leen di jox cangaay ñu koy def ci sio te alors que musiba la mën nga koo sangoo ci saa si loo am lépp mu dem mais bu dee canga da nga koo def ci leket di ko sangoowee loo am day toog xamuñu loolu xamuñu loolu ñu bari xamuñu sangaayu leget leget day law. laa ilaha illallah te ñu bari xamuñu loolu. xamuñu ko waaw ñu ci bari xamoo maaman yi dafa bari classe sama classe bi dafa bari waaye te kenn xamul dara kenn mënul yàlla rek a man nit di lijjanti kayit mu dëgër nga jox ko téeméeri cangaay nga génn loo ko sarax bu ndaw mu sotti. mu sotti bala nga koo defaral cangaay li sax mu sotti. bu sarax bi génn yàlla sunu borom daal di koy. d'accord lan ngay tàggoo moom dafa bari semaine prochaine dinañ ñëw ci problème yi mu wax maanaam jox nit cangaay. mu def ko ci sio te alors que siwo ba baaxul am na lu ko gën. ndax di nga jël nit ba garab jox ko ko mu baax mu génn mu toj. lan ngay tàggoo. am na bët yoo xam ne sax garab gu ñu xool mu yàqu. Uh-huh. te du ñu xam dara. Uh-huh. waaye loolu yàlla koy def ci nit secret ba bu nit a yàllaa ko xam. Uh-huh. waaye daal man de su ma la jox. nga war koo sangoo. bu fekkoon ne ne sanu maam ca bu njëkk. leget gi nga xam ne moom la sang wala njaq si. da koy dëpp. Mhm. bu ñëwee sangalam mhm. bu la joxee garab yi ne la yóbbul be sàngam boo mhm. demee def ko nangam ak nangam na mu la ko waxee boo ko ni defee di nga ko teg bët ba tey loola it ca la sama maam daan def démb ak bërki démb moom laay def feyakuwuma ci kaw boo génnee sa sarax ma la seetalee sarax ba nu man toll soo ko génnee balaa sarax bi bu sarax bi génnee balaa ngaa jot say liggéey sax yàlla man naa faj sa aajo jërëjëf alors mu nekkoon ajaratu Fatou Ngom ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ah, ci People 221 TV HD maanaam bépp actualité boo xam ne soxla ngeen ko rek mun ngeen fa dem moom nag di ngeen ko xaaraat ci ay waxtaan yu bari dina ci ñëw ak jafe-jafe doomu aadama yi am na lu bari lu ñu ji am ah ndigul yi métti tànk yu métti raay mu sedd la xaju fi ay pommade yoo xam ne boo ko ci daaneel boo ko ci laalee boo ko karité ak laaj day dañ day sedd ci saas yi nga am damm-damm boo xam ne tënaa wér cat laxasu ci parce que day ànd ak seytaane ak ngelaw loolu yëpp incha allahu taala